ngay gis gaa yoo xam ne ñoom ñooy taxaw naan non ñun mën nañoo fen-fen bi bàyyi leen ñu ñu fen bi nee na ñooñu ñooy tontu Bougane man Bougane Gueye lépp lu ma wax jëm ci ñoom kenn du ko tekki gis naa léegi <coughs> gis naa léegi sax waa FMI nee nañu réew mi metti na réew mu metti FMI moo leen koy wax euh, c'est que c'est ñun dañ nekk ci ci réew boo xam ne réew mu neex la quoi réew mu metti na FMI moo leen koy wax mais yéen ñii toxaw fii yéen ñii ku yëgul ne réew mi metti na kan moo yëgul ne réew mi metti na moonte ñoom ñi doon wax démb privilège yi oui diw warul dugg ci avion wu 60 milliards diw warul nangam nangam man sama position demb moy sama position tay avion bi dañ ko wara a jaay moy suma gëm-gëm xam nga lutax dama tok di waxtaan ak suma ben xarit barki demb mune ma mais bugan pourquoi nga bëgg ñu jaay avion bi ma ko mais parce que yow sacré cœur nga dëkk ma ko yow sacré cœur nga dëkk sa yaay mu ngi dëkk almadi diggante Sacré Cœur ak Almadi fooy daw tali la ma ne ko est-ce que xam nga brigade gendarmerie bu Samine dans le département de Goudomp mu ne ma ma ko juróomi agent ñoo fa nekk ma ne ko est-ce que xam nga brigade gendarmerie bu Kousanaar mu ne ah, ma ne ko néegu ñax la mooy brigade gendarmerie bi ak benn baraak bu nekk ci wet gi ñetti gendarme ñoo fa nekk ma ne ko ñaata ci ay sénégalais ñoo mënul jël seen soxna buy mucc ñu teg ko ci ambulance wala ñu dugal ko ci oto bu normal yóbbu ko mu dem Wusini ñaata ci village mënuñu am centre de santé bu baax ñaata ci suñuy doom munuñu dem jàngi école ci classe bu baax nga jël avion def ci 60 milliards monte de moment boobu école yi ñuy tuddee classe yi ñuy tuddee abri provisoire pour ñu rafal ko Sénégal dootu fi am 30 milliards pour régler problème bi kon pour man dafa am ay priorité et priorité yooyu waruñu ko moy et dama jàppoon ni ñii bu ñu ñëwee dañuy taxaw ci position yooyu dañuy taxaw ci régler problème au sénégalais mais malheureusement les privilèges sont toujours là mais c'est les privilégiés qui ont changé gis ngeen bërki démb benn ministre yegg na sax ba ci wax ne boo ma yónnee CV boo ci bindul ne Pastef nga bokk man CV boobu intéressé wu ma nga gis ne bërki démb génne nañu rapport buy wane ne junni ci nit ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett junni 1148 jël nañu leen defal leen ay contrat spéciaux yokk salaire yi doon ñu ñu doon fayu ci état bi jële ko 114 milliards dolli ci yeneen ñaari milliards muy 116 milliards moom Ousmane Sonko mi doon wax ne réew mi dañ koy yor yor bu baax ci ñetti weer yi ñu génn moom primature 12 milliards la jëfandikoo moom Diomaye ca présidence 34 milliards la jëfandikoo yéen ñii la réew mi naqari ci yéen yow sénégalais biy jóg di taaba taaba yow mii gobar jaasi yow mii toltolaan togg añ tibb ci reer yow la Sénégal jafe ci yow mais ñoom ñi nekk ci nguur gi non senegal jafewul ci ñëw senegal bu neex ñoom la ñuy dund la ñu doon gis ci Macky Sall ñuy gundaandaat yor alalu réew mi di ci def seen balaxal madda tey jii ñoom foofu la ñu toll

tëdd na ba génn commissaire na Keita tey jii pour li mu wax nga xam ne mënoon nga ne ko sax demal comme yëf bi amewul ni ñu ko waxee wedd